te sa digganteeg Fawzeyni ku ne xam na ni copie conforme la saa bu dee da nga nar a complot ak Eumeu bés ba nga wax ni Balla Gaye de ah maa ko tudde woon cukkali bu ma ko tuddee ak Fawzeyni mooy gaynde eh, Abdoulaye Sadaga joxoon sëñ Muntaxa Sa Thiès wala bëñ li muy weex weex sàppali deretu ko lal waaw asalaamaaleykum parce que tàppante beeg ree réewante beeg naqasaale beeg diggante te ama seen du genre boobu buur kii yóbbu nañ ko fànn werul yóbbu nañ ko lasara dof bi wérul yóbbu nañ ko raffinerie mbaaw wérul bërki de moo njaay diggante mag sàkkande koko laay laay jamu def dóoranteg moom rëppatal dip til bu lee réew ju neex ji daf lay nax gëmu ko je t'avertis ah sàppali buur yaakaar naa ne am na solo ñu ngi nuyu ñu nekk ci plateau bi yëpp di leen jàmm du nuyu gars yi nga xam ne nii suñu bokk ñi nga xam ne ñoo nekk internet bi ñu ngi leen nuyu bu baax xam nga làmb day toll foo xam ne nii yaakaar naa ne ñaar ñi ñii combat confirmation la ñu war a bëree bay bàll ci naka sa ko fi de waaw foo xam ne nii ci làmb Eumeu dafa fu mu toll ci làmb te da ko ñàkk te dafa bëgg a dellu siwaat lu mu ñàkk sàppali Eumeu Sène dafa nekk benn leader biir Pikine hmm. Eumeu Sène dafa nekk benn leader biir Pikine mbër dugg Pikine daan ñaari rakkam mu war a dellu si ci làmb te lu koy dellu si waat ci làmb mooy daan Sa Thiès. est-ce qu'il le fera. Baye Balla yegg si weer yegg si yegg xam nga lu waral loolu. Sa Thiès kenn gënu koo xam Eumeu Sène ndax ku ngeen a Balla Gaye de ñaari yoon Eumeu seen daan ko. mu lëng yóbbu ñëpp. te dafa am benn chance boo xam ne nii moom confirmé ci Eumeu Sène moo ko koy may ndax àdduna yëpp xam nañ ne Sa Thiès am na pour soixante pour cent wala soixante-dix pour cent. pour bëri Modou Lo le roi des arènes te réussir ci Eumeu Sène moo koy may mbër mu xor lay bëreel ku ñeme coow ku ñeme xeex ku am jom ndax Sa li ñuy xaar ci digganteeg moom ndax lii ñuy nëbb ni amul nañu wax lu fi nekk hmm. Eumeu Sène dafa bëgg dellu siwaat ci làmb dafa am fu mu bëgg tegaat tànkam ci làmb ñii dañuy jiyaat de Eumeu ay nawleem ci làmb ñi nga xam ne nii tey ji Eumeu moo leen dàq bëri téeméeri ji ñoo yor làmb ñii dañuy hmm. xeex de Eumeu pour mu Sa ñim maaseel jamono ñëpp xam nañ ne Sa Thiès ay ñaar ñi dañuy bëre de lan la Sa Thiès nar buur Sa Thiès metti lool loo nar sa diggante ak maaseel e-, eggaguñu foofu yegguñu foofu <laughs> demal Baye Balla xam nga dama ngeen analyse rek doy na xama xew analyse bi rek lañ soxla woon xew mooy Baye dafa ñëw waaw te li ma lay wax rek lamb ji dafa dangereux parce que poko laa ngi nii toog lamb ji dafa ñun ñëpp ay naatangoo lañu ñun suñ leen magee ci làmb yit li ngeen ci def ñuy jamono ji maa ngi Malick defuñu ko ci keneen defu ko ci. ci lu wér parce que yéen a ngi dugg fépp. bàyyi balla boo gisee programme bu mel nii fu ñu gis programme dañ lay séen ci wàllu làmb ñu gis tam liggéey rafet bi ngay def ci Bantamba TV ñu lay nuyu di nuyu âge békaay nga gis Sa Thiès toog nga dégg lañ ko wax ni Eumeu Sène dafa yàpp kër Double Less dugg na fa bi mooy ñetteelu yoon mu dugg fa ki ñëw ne dafa koy furli problème bi mooy juróomi juróomi dimanche yi nga xam ni alburaax boole na ko def ko benn dimanche sa jàngat laataa nuy dugg ci Liss Ndiago après ñu ñëw nag ci Eumeu ak euh, Sa Thiès dañ koy sot sotoo ñu ñëpp acca auzu bi kalimatillahi tamati min sharri ma xalaqa ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu réew mi di nuyu képp koo xamante ni yaa ngi seetaan à travers Télé Futurs Médias di nuyu assistance bi yëpp di la xamal ni Lamine am nañu mbégte mu rëy tey Albourakh Events wax naa ko léegi dafa yokk lu hmm. bare bare bari ci làmb parce que bis bii dafa nekk bis boo xamante ni bis du ko dàq ci làmb yombul de parce que xale yiñ ci boole hmm. boo indi Liss Ndiaga indi Pokola Balde rek loolu rek day na grand combat hmm. làmb la làmb du làmb làmb milieu la day na war làmb ju bari coow la Liss Ndiago ak Pokola Balde ah ngi nii toog nga indi ah ndaanaan bii toog mm-hmm. wulli wulli mm-hmm. loolu tamit grand combat la diggante baari baari kiriku papa baari baari kuriku combat bu neex la mais combat bi ma gën a neex ci journée bi nag mooy ban mooy Bou Siteu oh ak Tapha Gueye numéro deux Bou Siteu Tapha Gueye deux numéro deux dafa jàkkaarloog ah Laurent Ndiago am na lu ma la ca wan ca bés boobu ndax lexpérience expérience face à la jeunesse la mm. expérience bi dafa bari mën nga koo wax lu ne waaye bis bi bu ar bi sifle seen génnee seen diggante mun na laa nax daan la ngir expérience bi moo bari hmm. ñuy félicité bu baax Albourakh Events di nuyu bu baax Abdou Aziz Ala Ndiaye hmm. le fils de son père wallaay hmm. jàmbaar la ndax bis bi yaakaar naa ne amateurs yi ñëpp ko bëgg ama seen sëtu Samba Xoyaan baa ngi nii toog bis dootu ko dépassé Fadam yaa ko wax léegi yaa ne Eumeu Sène dugg kër dubalees sunu bàyyi am lu mu fa def waaye duggul kër dubalees kese de géejawaay la ëmb seen miin hmm, bay bàlla li nga wax dafa am solo may ma tuuti ma ñëw ñëwoon ëmb seen dafa miin géejawaay dafa dugg géejawaay maîtriser leen ci bëri bi te ku ko xam-xam ni xam-xam bi ci wàllu bëri ëpp ku ko ci làmb du yomb parce que ku ko gis contre Tapha Tine ni mu bëri donte dafa ñàkk combat bi sax keroog ëmm mën a jëm xamante ni ngar mi gi ak njàmbaar goo xamante ni keroog amateur yëpp ñoo koy saaliw amateur yëpp bay bala bay bala dama bëgg ñu ñu xaar tuuti mhm. muy yow ak ñëpp taxawee ni xaar tuuti mhm. léegi bu ko defee ñu dugal pokola bu ñu dugalee pokola ba pare après ñu dugal wulli ak waaji mm. ñu sot Sa Thiès ak Eumeu ñun ñëpp Lamine bala ba dama bëggoon a xam rek waaw ndax Sa Thiès ndox dina bàyyi yoonam dina ñëw loolu ci kanam dina leer da ciy ñëw léegi acca ñu dugal Pokola merci beaucoup léegi eh, eh, eh. Pokola Baldé Malick xaaral xaaral bu ñu paree kii day dóor moom ak kii man ak Baye Ball ñu dóor yow nga dóor ak Baye Ndiaye maa ngi nuyu as bu baax moo leen ni pompe moroomu new acca ñu dugal Pokola Baye ba man maam cinquante neuf ans di dóorante ak Baye xalaat moom oho la ilaha illa Touba surtout Falaye Balde baa ngi noonu ndeysaan mu ngi noonu ndaanaan xoolal dama def benn action xoolal dama def benn action grand goro dama def benn action bu garaaw dama jékki-jékki rek. ko ne Liss Ndiago fi mu xale bi amul macha allah yàlla bu ko cat topp yow kii boo nekkee Liss am problème de grand te ngaa toog problème bi mooy xale bi ñëwul tey est-ce que corosé yi mu fi jëlee keroog moo tax ba ñëwul wala. non jàmm ko téye rek yàlla ko yàlla defal jàmm nga ko waaw yàlla ko defal jàmm waaw di ko defal jàmm nag ba le cinq incha allah nan ngay waajee le cinq waaw le cinq li ñu doon waajee rek la ñuy waajal maa ngi nuyoo ñëpp suñ ñu fi fekk yëpp di nuyu sama papa Eumeu Sène di nijaay Sakees di nuyu ñëpp di nuyu ñu fi toog yëpp du nuyu mbëri yëpp waaw di ñaan Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm di nuyu sama nijaay ordinateur bu baax waaw moom amul ma koy wax barki yàlla amul ma koy wax na nga joxewaat gi déggoo ma ne kii man a moom séquñu dóor lu ngeen séq këf jël yow yaay këf jël waaw këf jël lañ séq ku fi ñëpp bàyyi laa soxla mooy kan Zarko <laughs> njombe moom laa soxla njombe mu mag yow yow njombe pareegul ci liis di jëli cargo moom laa soxla day rang avance booy bu dof baa ngi nii bu ñuul kuku bi mbaam bi mais xanaa da ngay pare ci li <laughs> na ñëw moom laa soxla xanaa da ngay pare ci li ku ñëwul amul may waxal la ma soxla laa bëgg. ayca wool ñu ngay woo boog. doo woote. wooteel li may woote xam na nga bu baax booy Pikine yi nee na arène nationale une heure pile wala midi ñu tëj stade bi. mu jeex. billaay walaay ñu tëj stade bi. booy dañuy tëj stade bi booy dañuy dajale ay tout tànk yu toll nii nii ak nii di dajale. chaque jour rek may romb naa ma mbër mi ñu ngi dajale. ndeysaan tëj stade bi billaay walaay aw ma seen fay. boo yooyee tax ngay xaru. yooyu ñoo tax man drapeau Pikine laay laa. Pikine laa juddoo. laa yoroo du nuyu ñëpp. du nuyu nag waa Campenaal maa ngi leen bu baax. du nuyu waa 100 mètres di ko jox di ko nuyu di ko nuyu Jogo di nuyu ñëpp ñëpp. daal di nuyu ñoom Amar Fente ñoom Arab Boyer sama booy yu fi ñu àndal ñëpp maa leen nuyu. Liss Ndiago di ko ne lu mu liggéeyee na ko xeeb incha allah lu muy bañ laay def day bëre day xeex acca ñu dem nga dóori man ko jaru ko jaru ko Malick sama problème mooy waaw ah. ama da ma gis ma sol sànq ñetti abdu waaw léegi ama fashion mi may solal ne ma jëlal ñetti abdu bi nga jox ko ko